di sant Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu tëwér waaye di ko ñaanal mbooleem jullit ñi yàlla ñu ko yàlla defal ñoo ngi nuyu kilifa dëkk bi ak imaam bi waaye di nuyu bu baax a baax a baax mboolem ku fi yewoo rek siyaaru waa kër Alaaji Ndaama Fall bépp ñu teg ko ci loxol sëñ Mahamadan waaye mbooleem koo xam ni sëñ Mahmadan mooy eh, kilifaam nga rek maa ngi la koy teg sa loxo sëñ Mahmadan nga jàllaleel ma ko ci ci mboolem koo xam ni mu ngi ci rek ndax booy dem dangay ngay jaar ci bunt ba waaye moom bu ñu ko tegee ci loxoom mu jàll ci mbooleem ku ko yelloon rek yàlla na yàlla fale defal la tawféex ay nuyu sëñ Basiiru nga xam ne sunu teewaay ci dëkk bi ci moom la jaaree ñuy satub sëñ Tubaa la nit ku baax ku sell yéen yàlla na yàlla fay la la ñuy nuyoo sunu ndijaay ju baax ji suñu àll yu mbay xam ne rafetal rek la man yàlla yàlla fay la guddal sa fan te wéral la ay nuyu mboolem jànkit xasida yi sëñ mën naa gàkku ñu ngi lay siyaar bu baax di la ñaanal jàmm sëñ Abdou Wade ñu ngi nuyu ñëpp bi sëñ mën baax gi àgg na ci jéego bu nekk def na ko rek ngir bëgg ñu ñëw fii daaw ak ren lépp ak mbaaxam ak bëggam sëñ Tuubaa ak fonk gum fonk dëkk bi te ma xam ci dara waaye di siyaar bu baax a baax sëñ Modou fàll ak ñi mu àndal ñëpp sëñ Mourtala ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax a baax Tawfekh Production ñaan yàlla na ko yàlla yokk di siyaare sëñ Gana Messere Mokhtar mi nga xam ni bu noppee moom moo war jël kàddu gi muy nit ku baax koo xam léegi rek fan jóge ñoo fa bokk jóge muy koo xam ni yóbbu na drapeau bi yoonu murit fu bare bare bare ndax ñu bari kenn nañu sëriñ Tubaa xam na nañu sëriñ bi jaare ci moom yàlla na yàlla fay ko waaye waxtaan wi du génn Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam du génn nit sëriñ Tubaa ak ñi sëriñ Tubaa defaroon noo ngi nuyuwaat ñépp di leen siyaar dem mbégte guddi tay gi am gi solo foo ko takk wees na ko ndax waaw guddi gu toll nii sax day musta am ci àdduna guddi gu ni toll musta li tax mooy ki ci wàcc moo musta ku mel ni moom moo musta ñëw ci àdduna sëñ Tuubaa nit ku sàmm la ndax dafa wax ne nit nit bu baree lu muy giñ ñaare mën naa bañ wax dëgg moo tax ñuy teree giñ yu bari giñ yu bari baaxut donte dëgg la sax nee na ay giñ daa mat a wàññi sëñ Tuubaa nag ñaari yoon laay gis mu giñ ci si yi bu giñee rek day wax ni ku dugg ci bàmmeel di nga xam ni yàlla dëgg la bëgg tallaahi la seen fa mu sasu xadaa yooyu mooy tax mu giñ beneen giñ bu mën a doon mooy day giñ ci yàlla ni ku mel ne rasulullaahi du amati ak di giñ naan dama ko bëgg nga xam ne bu dee dama ko bëgg nit ñi gëm ko mais day jaral sax mu giñ pour ñu xam ne bëgg na ko billaahi ahbabtu rasulullaahi alayhi xayru salawaatullaahi maa bëgg rasulullaahi daa dini yàlla na yàlla dolli jàmm daa dini waaye billaahi lam yaati misluhu wala sa mislal ayat ku mel ni moom dootu ñëw mukk ci àdduna ba pare nee na moo nekk kéemtaanu àdduna Seydina Muhammad war ma ji sëñ Tuubaa am ba tax sëñ Tuubaa mu bari taraanga taraangee sëñ Tuubaa nag du xaalis du ay kër déedéet mooy ab cëram ci yàlla mooy taraangaam nit yàlla taraangaam mooy xam-xamam yàlla ñu bari bu leen di tagg cay nit yàlla xam-xam leen di tagge waaye du ay coffre du xaalis du yooyu déedéet nit nag mën naa am xaalis jaaree ci am yàlla nit mën naa am xaalis jaare ci ñàkk yàlla loolu dal xaaruna inna xaaruna kaana min xawi Muusa fa baxaa àllayhi wa aataynahu minal kunuuzi alal jaa ko jax nax ba tax mu bew na amoon na pexe yu mel noonu waaye na lim comprendre mooy dafa dafa dafa naagu bay wax naan ana rabbukumul a'laa may yàlla ji gën a màgg iblis mu saay-saay bi xamoo lu mu ko tontu ay firawna kaddu gi nga wax de ñëwama ko wax man de àgg naa bon naa loolu waaye ñëwama wax maa yàlla léegi bi firawna bëggee tuub nag mënu iblis gi iblis ne ko jarut tuub comme wax nga ko bëre mu daal di koy bàyyi tuubut waaye xoola firawna bon na bon goo xam ni bàyyiwul xel ni ay pexe la daan am wut ay njabar ñu koy njabaral lu ko neex wax muy am ñu naan daa am karaama déet fekk amul fekk yàlla moo ni ñi ami pexe perte nañ moo tax ay pexe wóorul liggéey gën a wóor ay pexe afa aminoo makral lay falaa yaamunu makral lay ilal xaw ma xaasiroona moo tax sëñ tubaa bi muy wax ni ko yàlla teg ci kaw sëñ tubaa yàlla ko teg ci kaw bi mu koy wax dañu ay pexe taxul yàlla def ma ko dama ko jaamu rek mu faye ma ko antal xaliyu la si ahlaytani abadan bi xayri makkarin wali xalalta yàlla wo bi muy wax it ni mu tedde moom sëñ tubaa ak ni màgge dañu ay pexe taxut yàlla yàlla mu yàlla mu màgg mi moo fayee sama màggaay gi teraanga joo gis ma am ko ak yool yu bari yi ma yor yàlla mu màgg mee ko def antal kabiru lesi baanat kabaratuhu lii xutta min ka kabiral ajri yàlla moo tax musta xeex sëñ Tuubaa musta xuloo musta mere doomu aadama ngir intérêt boppam léegi sëñ Tuubaa nee na jullit ñu góor ñi dama leen def ay soppe nee na fu ngeen dégg ñu ne diw damaa noonu sëñ Tuubaa nee leen ko noonu moo ko man benn noonu laa muy iblis yéegul sax ba xam am na ñu ko bañ iblis laa jàpp ni way sama noonu te boo déggee mi wax naan ku ko bañ ak ku àndut ak moom mooy ku ko noonu dangaa noonu dogalub yàlla ci jëmmam te ku noonu ku weddi dogalub yàlla àjjana doo fa dugg ndax yoon sa ma daa woote ñi ko gàntal duñ dugg àjjana ñi wuy si nag moom yàlla mooy def àjjanaay seen kër donte am na ñu def bàkkaar yàlla du leen du leen sawara da leen di fóot génn waat leen ñu dem àjjana àjjana nag bu leen la bu la kenn sonal kenn dafa dugg ci amul ngërëmul yàlla même bu nekkee sawara ba mu yàgg yàlla bëgg ko génne da koy génne malaaka bi mu teg buntu àjjana da ko tudde ridwaan mooy ngërëm booy dugg reesoog moom joxe nuyoo ngërëm li dal la mais kenn dafa dugg dafa duggaale ak ñàkk ngërëmul yàlla loolu programme suñu borom la léegi nag ki wàcc ci guddi gii teggi ni sëñ tubaa tax na moom sëñ tubaa xës dëgg gës bu mu xaddimat nag laa bëgg ci waxtaan lu yaatu ngeen dégg ko parce que gis bu dalay wax ganeek jamono ak yonent bi waaye xoola teggi ni Sëñ Tuubaa xasida dëgg doo gis tarjumaan bi waaye bi mu tàmbalee daa sant yàlla boromam ci xéwal yi ko yàlla xéwalee dégg nga maa jaxi jamii ni xamit ci mboolem xéwal yi da ci sant yàlla léegi nag bi mu demee boor a dugg ci juddu bi nag waxul nii la gane jamono de ak taxaw naan diwa ko doon reew li diwa ko doon def nangam teggi ni Sëñ Tuubaa agul foofa ndax warmal bu warmal Seydina Muhammad xam nga nu mu wax day ñëw rek daal di ne guddi kat guddi gi mu gën a jamono kat ku ko màggal yàlla jéggal la ku ko màggal set ci bàggaar ku ko màggal nangam nangam laylatul mawlid nabi laylatul mahwi taxa bi laylatul mahwi riya bi wa turi si loolu lay wax li tax mooy sëñ Tuubaa daa wormaal Seydina Muhammad comme ni ko yàlla wormaale musul tudd ay soxnaam bu tuddee ay soxnaam lim ciy teg lu rafet lay doon musul leen woowee tamit comme di leen sàllalu déedéet fi ne mariage Seydina Muhammad sëñ Tuubaa musu cee xuus ndax wormaal ko xoolal xare Uhud kenn du liir xasaayid ba gis ci sëñ Tuubaa bind xare Uhud bi ñu ko laajee dani waaw ndax mus ngeen a gis kuy nettali defatu soppeem nee na ki nga bëgg booy wax defetam yaa ngi koy ignoré moo tax bëgg te wax loolu moo tax sëñ bi bi mu ñëwee dani xare Uhud kat sama sëriñ dafa am sama soppe fa la amee defet jëruma koy tudd ndax nee na sa salama xare Uhud lañ ko gañe woon ba dem fa bëñam waaye sëñ Tuubaa du ko limaale ndax bëgg gum ko bëgg ak warmal gum ko warmal moo tax léeg-léeg nga dégg firikat buy firi maqaamaatu xayril xalqi xan xay rabbi yi mu xayabatun fal taqar an sort naj bi da ngay dégg ñëpp di ko firi ci télé bi naan sëñ tubaa nee na ku bëgg xam maqaam rasulullahi jàng sort naj mi di ko xam déedéet sëñ tubaa waxul loolu sëñ tubaa dani sëñ tubaa nangul ko xam seydina Muhammad nangul ko moom sax nangul ko xam bay xam yenente bi dani boo bëggee xam maqaamam seydina Muhammad nee na jàngal sort nañ mi di nga xam ne ku dul yàlla mënu koo xam mooy an xayri rabbi yi ku dul borom bi ne na laa leer waaye léegi sëñ Tuubaa lu muy waxee ci xes dëgg raay yéega xam nga Buuseyri dafa taalif dafa taalif burdu muy burdu bi suñu mbokk ci yaani jàng mu neex lool ñu tag ko Seydina Muhammad masa ca dam xan jara min muxlatin bi dam yi amita sakur jiiraani la ko tàmbalee sax mu ñëw mu neex lool burdu bu neex léegi xoolal ci biir ni ni moog sëñ ni ñu ni ni ñu ni ñu ni ñu taggee yonent bi Buuseyri day day way rasulullahi ba ni fa mablaxul xilmi fiihi annahu basarun ne bi mu ko defee dafa gag tëdd guddi nelaw benn bis mooy li mu wax dafa garaw de maqaamam yonente bi ak xam-xamam ak dayoom xam naa ni mbindeef la daal taxaw yonente bee ko feeñ ci nelaw ni ko mën nga àggale sa saay boo xëyee neel man wa annoo xayru xalqi llaahi kullihim ku yàlla bind ma la gën ba mu ba mu génnee adduna yàgg na de sëñ tubaa at yi at yi bëri wut yàggul adduna soixante-quinze ans la fi dund 33 ans yi ci loxo tubaab bi la nekk ñëwee bind xes dëgg raay yéegi dani fa mablaxul xiil mi fii annahu basarun ñuy xaar lu mu ci teg ak ndax dina gàgg ak dañ ko fàttali mu ni yonent bi maqaamam xel du ko xalaat làmmiñ mënu ko tudd wa no doonoo axlunu afkaaru léegi kooku lu muy ñëwaat ci muxaddimaan naan yàlla ku ma jàng alxuraan xam mooy kan bëggul ko xam Seydina Muhammad li mu bëgg moom Sëñ Tuubaa mooy nekk fi ronam dafa wax sax ci xasidaam gu ñuy wax asiir wax ni man de képp ku ma woowee lu dul jaamu bi yàlla Sëñ Tuubaa nee na yaa ngi ci erreur ñu ne ko tax mu ni fi laa commencé ci fi laa yem masiri kaw nii abdoo xaadima nabi wa amrul baraaya li ilahi yasiru ku seere wax ji mu ni yàlla mi mujj mbir yi nit ñëpp seen mbir yàlla koy mujje ñëpp seen mbir yàlla koy mujje kooku nag mooy wax jikko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci xasida gi muqaddimaat gi ndax xasida gi fukki bayit ak ñaar la fukki bunt ak ñaar la ba bunt bu ne fukki bayit ak ñaar la dafa jël aaya booy naka naa laa xulaxin jël waaw gi tëgg ci wasixtu alif gi mu jël ci aroomu noon gi mu jël nahaaniya keef gi mu jël katat doo kulli farafasan boo sirka laam gi mu jël limaw laa yaa xam di noonu la ko tàmbalee noonu la ko defee noonu la ko defee ba xës dëgg àgg léegi ci biir xës dëgg nag xoolal koy naka laa la ko naxas bi xam mooy lan yàlla moo tagg Seydina na ci jikko ju rafet yeneen sa salaam amutoon jasneer maanaam ci misaal amutoon yére yu foor yi ngay dégg yàlla tagg ko ci xaalis bu bari yàlla taggewu ko ci ay baay da ko tagg ci ni ko yow sa jikko dafa màgg moo tax bi Sëñ Tuubaa di tagg wax naa ko benn bis ci taasukat yi li ñuy taasu ni di faral di wax naan bul sol bul simmi ko sa jikko sol na la may leen lii baatinu taasu bi Sëñ Tuubaa na ko rasulullahi bu yàgg ñoom ñu door ko wax ndax Sëñ Tuubaa mun yonent bi jërul nga soloo ko sumu ko sa jikko dalaa solal la bis ta siyaabal maj di mooy yërey tedd ngay la yàlla solal yërey tedd nga yan la mu ni wal fadli yëree ngëneel wal xulaa ak yëree kawe boo fii kat nekk na ci yow say yow yéen rasulullah yi minal axlaaq yi say jikko mbaax xa jasal kullaa kenn mënu ko am ñëpp lor ci am say jikko léegi lan mooy jikkoom mooy koo xam ne boo ko tooñee du fayu boo ko meree du la mere boo gëmut mu lay naxtaan ba kere ngay gëm waaye mustamer musteexuloo kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa léegi nag ci xës dogalu Sëñ Tuubaa tàmbali maa ngi dëgërloo yàlla borom bi wasixtu bi rabbil xarsi yàlla man la mu ne yàlla mi tabe ba rëpp di jéggale sil jodi wala xaf wi koy àndal mu ni Seydina Muhammad du ko bàyyi ginnaaw mukk ndax gëm gum gëm yonent bi sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa yonent bi nekkoon sëriñam loolu mat naa fàttali bu baax a baax a baax a baax moo tax mu moo tax koo mën a doon murit ak jullit a ci yam war ngaa bàyyi xel ki sëñ Tuubaa gëmoon ba waroo koo suufeel ndax sëñ Tuubaa lum laal ak lum gëm bokkut ak lum laalul te leen rek moo taxoon muy mooy def bu ñu def yàlla ñett ànd na tubaab yi naa leen yéen ay kàcc gën ngeen yàlla mi fi des kenn lay doon lu toq seen xel ba ngeen jàpp ne loola daa sore loola yàlla la nee na loola ak sore ak yàlla allahu baaxin xaddimin laa yusaabihuma bil baali yaxtur wal mufradul alamu ba mu yàgg mu naa leen yéen ngeen xam ne da ngeen a gumba taxalu xamu leen sax li xew yàlla mii ngeen bëgg jël def ko ñaar ak ñett ba mu yàgg muy leen sax man ahmadu ahmadu bamba laa tudd du ma ragal ku dul yàlla du ko bokkaale tamit ne su ma delloo fu réew ma ma dëkk ak fii ma nekk fi yéen du ma bokkaal yàlla wenn waxtu inni la ahmadu rabban la sharika lahu fil barri wal bahri wal waasiul akram yàlla mi yaatu ca xereñ kenn yàlla googu mu dëkke woon sëñ tubaa lu mu am ci la ko am te tagg rasul lay lu dal sëñ tubaa moo ko teg waaye da ko waaye bëgg na am na yonent yi bare bare bari ci alxuraan boo leen jàngee ñenn ñi dañuy def erreur yàlla sanctionné leen ñii ay 40 jours ñii ñii ay weer parce que erreur bu mu def ngir di leen jàngal nga xam li ñu def ñoom day tere koo def waaye kenn rek la yàlla di corriger ci alxuraan bu koy corriger daf koy neexal ndax cofeelam ci moom muy yàlla danaan ko nii sa borom jéggal na la maanaam yedd la bala mu laay yedd dalay dalay encouragé ba pare door laay yedd ba pare wan la njéggal wan la yërmande door laay yedd loolu ko bëgg koy def xafal law xanka li ma asanta lahum sa borom jéggal na la waaye waroo woon a def li Muhammad ndax war maal ko war ma joj nag la ko Sëñ Tuubaa joxoon fi ne xës de sëñ tubaay li muy gàtt gàtt fi ne xoolal gës bu dugg ci benn bayit ba génn beneen bayit ci gisoo sëñ tubaay julli ci yonte ba mut fu mu tuddee turam lu mu gàtt gàtt dina julli ci moom ndax warmal mu jël xës dëggi nag wax ni wasixtu bi rabbil arsi sil joodi wal arfi maa al mustafa wala li mux lin saf yi maa ngi dëgërloo yàlla mii borom aras am ak sayyidina muhammad ba mu yàgg mu ni am naa geneen dëgërlu gu ma dëgërloo yàlla gën dëgërlu la mu ni damaa ci muxtaar mi yàlla tànn wasixtu ma al muxtaar yi ànd ak sama borom bi lay wax doxoo moom rek lay dëggalu ci moom xale yi salaamaa man sama sang bi yàlla na ko yàlla doolu tedd nga waaye bii ci daraja yonent bi xat sax wi la yàlla fare sama njuumte sëñ Tuubaa musul juum ci dundam xam nga lan mooy njuumte mooy musul def bàkkaar musu koo def ci gémmiñam musu koo def ci xelam musu ko def ci cëram juróom-ñaari cër la ko yàlla sàkk jox ko sëñ Tuubaa nee na benn mus ci yàlla lu tax musta moo yàlla mu ni ci daraja yonent bi léegi kooku xam nga ni bàyyi na xel Seydina Muhammad ci dara jaam nee na ci la ma yàlla defale musuma mooy yàlla mu wax ni nag yàlla moo far samay caaxaan wasixtuma al muxtaari bi lay wax doo alay salaam bi xatma lax wi waaye waxaani bi ñuy su a moo dem xeeti ñaaw tif yëpp yàlla fegal na ma ko xanaa xamoo nit bu say ñaaw tif jeexee nga am xéwal mu ni mboolem xéwali adduna bi yàlla jox na ma ko wali kanabil munaa yàlla dafa ma sellal man sëñ Tuubaa bi biti ci daraja yi Seydina Muhammad xat ma sax wi la yàlla fare sama njuumte yi musumaa juum musumaa caaxaan ba mu yàgg mu ni sama mbind sama mbind sax musuma cee juum yaxi xilaamiyal xataa wa sahwa ak a yomb njuumte gën a yomb ci àdduna ndax yàlla juum loolu ñu bare bare bare bare waaye xoolal koo gis mu baax àdduna daa mu ko wane sag mbaax lu iblis bokk baaxu yontaal adama ko adama gee ko wane wala baaxu yontaal adama mënu iblis gee tax mu feeñ bi ko yàlla bindee rek bàyyi ko noonu bu fekkee iblis lankul bañ ko suyootal kenn du xam mbaaxu adama gi waaye iblis dafa mën a jaamu yàlla da koo mënoon ñun fi ñu toog sax mus na fee suyootal borom bi yàlla na fu ma sàkk ci àdduna iblis sëpp na fa jëwam bi waaye jot am ngërëmul yàlla léegi iblis moomu nag moo xëy benn bis lu war suba da koy yëg mu xëy daat ni suba de na ngeen waaj wax ko malaayka yi yàlla day joxe ndigal nañ sujootal aadama waaye daa am kuy bañ ki bañ da sawara liy dugg nekk moom lay doon yàlla nëbbu na ko ko moo tax yàlla du kenn da ko nëbbu li war a xew mu lànk yàlla daal di koy génne xadara bi iblis na dafa am fula ni ko fay ma li ma la jaamu lu ma la koy fayee mu ne ko dama bëgg dugg ci deret doomu yi di leen mooy loo yàlla lu ma neex defloo leen ko yàlla ni ko fay naa la léegi xoolal iblis ni ko nag dinaa taxaw seen kanam gàllankoor leen taxaw seen ginnaaw gàllankoor leen taxaw seen ndeyjoor gàllankoor leen taxaw seen càmmoñ gàllankoor leen laxfadan lahum siraatakal mustaqima summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an samaa'ilihim xam nga iblis lu muy bañ moo tax mu wax ko yàlla nee na ko yàlla bëgguma ko la sant wala tajidu aksarahum saakiriina xam nga lu ko yàlla tontu ndax dañ ko effectivement wax nga dëgg ñu bari di leen mooy loo yàlla waaye du ñëpp kon yàlla daa dëggal iblis waxam ba tax mu ñëw ci alxuraan wax ni ñu néew ñooy min xibaadi shakoor ko tontu nag moo am solo inna xibaadi laysa laka alayhim sultaanun xoolal dëgg-dëgg jaam ñi doo leen mën a dara sëñ Tuubaa mi tëj saytaane bi mu demee ba gañe victoire bi la doog a ñëw wax yàlla ni ko xaaral ma dëggalal la wax na iblis daal di jël xis dak ayaa samillah tëgg ko bi aaya bi yàlla tontu iblis inna xibaadi laysa laka alayhim sultaanun ayaa samillah inda jeewali iblis isnadaytoo bi yàwwali ca mujj ga nag mu ni maa ngi déyanteeg sama borom ca jeewal naajee tuwa bi yaa nasiru yàwwali ka fay tani iblis hinda jeewali xanaa kon xeex bi war a naa jeex bu yàgg mais sëñ Tuubaa nee na ñaari mbër bu ñu tëkkoontee ba daje nee na bu ñu roofoo kàcc ji njëkk jë ku ne xam na keleman waaye rocc ko day wees ne loolu moo dal sama digg ak ñoom waaye bi mu àndee ñoom la gën a gëm yàlla ci la gën a gëm Seydina Muhammad ci la ko gën a bëgg ci la ko gën a fonk ci la ko gën a warmale léegi des na beneen yonent yonental Ibrahima xamu ko tax ñu xam mbaaxam gi Namros ibnu Kanhaan mbonam gee tax ñu xam mbaaxu yonental Ibrahima gi Namros yilif na àdduna juróomi téeméer at ci ab baxtan sar yilif na ko juróomi téeméer at ci bi yéefar jullit ñi ñaare ko yilif juróomi téeméer at Suleymaan ak Sulxarnayni ñeent ñi ñoo mos a yilif adduna penku ak sowwu ci ay buur ñaar ñi ay jullit lan ñaar ñi ay yéefar ay yéefar lan waaye xoolal Namar ibnu Kanhaan moo tax mbaaxu yoon teel Ibrahima gi feeñ des na keneen de mbaaxu mbaaxu Seydina Muhammad gi alxuraan na ko feeñal ndax yàlla da ko yónni jamono boo xam ni dafa ñëw fekk tubaab yi fekk naar yi bokk arab yi man wàllu balaaxa slogan bu garaw la ñuy waxee boo waxee ñu dégg leen yeneen bi ñëw indi alxuraan am na yéefar yoo xam da nëbbul sax di ko diglu alwali ibnu muqira naan lii du waxi mbindeef omar bun xataab fii ne moo tax diina am ndam ndam lu rëy lii dina am omar a tax mu am sëñ tubaab moo ni sayyidna omar moo tax diina tedd ba faw abo xafsin alfaroxu sarwahu naadirun bi tasaddirul mosa isoon sow waaye xoolal da doon essayé di jàng suur tafsil ay aaya looloo ko dugal ci diine mu tëdd rek nelaw yàlla wan ko leer ga mu ñëw Seydina naa sallallahu alayhi wasallam bi ñëwee dañ ne ko ndax lii dëgg la mu naaw mu ne kon nan nodd ca kaw 39 personnes yonente buy julli buy julli day nëbbatu sëñ Tuubaa nee moo tax diine tedd waaye manu tubaab bi tax ñu xam mbaaxu sëñ Tuubaa gi sëñ Moussa Ka nee na manuk tubaab bee tax ñu xam mbaaxuk sëriñ bi te xam ni ñoo raw ci bon ñafeerook sëriñ Tuubaa dañ ne mënug namuroo sa tax ak fonk ngay xërëm ñu xam mbaaxu bi yoon tal Ibrahima xam leeg sëriñ tubaa mooy xam le ah mooy xam le Ibrahima xam leeg Serigne Touba daal ni bonug Firawna moo tax ñu xam mbaaxu bi yoon tal Moussa na bu bonul doon dajeeg yoon tal Moussa du ñu xam yoon tal Moussa nii la baaxee ca baru xel soom lan daje mu labal ko li tax mooy lu nekk jëf na kook moom yàlla jox ko karaama Firawna ay njabarkat la am pour ñu njabar yoon tal Moussa moom mu yor aw yàlla ne ko loo yor mu ne aw yet tàllal mu tàll mu def jànn fa alxee xasawu fa isahiya suhbaanun mubiinun mu jommal leen ñu gëm ko fi sensé ñenn ñi daal di weddi mu labal ñenn ñi xool yoon càll noox yoon càll noox 950 ans la dund 950 ans xam nga ñaata nit a ko gëm bi muy gën a dina 86 personnes daa mujj sax ni yàlla rayal ñëpp ñu jeex benn yoon ndax yéefar yi ba leen fi bàyyee ay doom yi saay-saay képp lan lay jural innaka in tasruhum yudillu xibaadaka wala yalidu ila fajiran kafaara moo tax nga xam ne woote bi sëñ tubaab bi am na solo de yàllaa ko wootaloo ci ndig yonte ko wootaloo ci ndigalul yàlla bi mu wootee ñun rek ëpp nañ 86 personnes ci moom la ñu gëm mooy woote bi day dëgg ba nag di lislaam sëñ Tuubaa nee na noonuwuma kenn ñëpp la bu góor ak jigéen dama ak bëgg naa leen muhibba kulli muslima wa muslima mubghida kulli mujrimin wa mujrima nee na ku ma bañ boo dee ab yëfar li nga nekk yëfar tax ma bañ la waaye sa jëm bañu ma ko ndax duma bañ ko yàlla bind kooku mbaax gi ci moom ngor gi ci sëñ Tuubaa tabe gi xanaa xamoo yonent saa salama lu ko yàlla xañoon may na ko sëñ Tuubaa yàlla da ko xañ mënut a bind yonent bi sulhul Hudaybiya Seydina Ali mooy bind accord yi daal di bind Muhammadu Rasulullah yi ñu ne ko effacé bu ñu ko gëmoon duñ ko topp yàlla gëm koo tax ñuy xeex ak moom de mu ni du ko dindi mukk yàlla ko yónni ma koy dindi yonent saa salama daal ni Ali wan ma sama tur ma effacé ko xamul turam moon ko ko mu jël bi da di ko effacé ndax bu fekkoon daa mën a bind dañuy wax ni alxuraan ji ma ko créé waaye yàlla daa fexe ba munta bind boo bindee jox ko du ko liir wala taqtuhu bi yaminika isan lar tabal ma buti loona yàllaa ko ne sa loxo ndajoor doo ci mën a bind sëñ tubaa nee na maa fay bor ba moo tax mais lu ko yàlla xañ fay na ko sëñ tubaa yemin nii alayha daynu xattin xawaari dan bi xidmatin xilli silmatin saadi beneen bi mooy ay fereeram ñenn ñi dañ koy weddi yàlla fay na ko sëñ tubaa borom daara muti sëñ tubaa la gëm maam see Anta ñoom ñëpp sëñ tubaa la gëm ay nijaayam am nañu ko weddi yàlla fay na ko ci sëñ Tuubaa sëñ Mbàkke Buso doomi nijaayam doomi bàjje na ma sëñ Tuubaa la gëmoon sëñ Buso bi moo ko jàngal alxuraan ba pare sëñ Tuubaa sëriñam yéen sa salama abo jëli nda ko weddi ci rakki yàlla fay na ko ci Sëñ Ibra Mbàkke Kajoor kon ndeke lu ko yàlla xañoon rek fay na ko ci kii ko bëggoon waa léegi lu tax sëñ Tuubaa am taraanga ji nag mooy daa am ku mu jëlan def ko muy xolam def ko muy lekkam def ko muy naanam musta jaaxle ci dara di ko tagg guddeeg bëccëg sëñ Tuubaa di wax ci xasida gi ci muxaddimaat wax ni sariatul islaamiyya yàlla dénk na ma ko ci daraja rasulullah lay lu tax mu dénk la ko mu ni damaa nekkoon jaamum yàlla buy liggéeyal yonent bi te musuma koo bokkaale alallahi man li xaada bil mustafa sarha tawakkaltu habdan xaadiman la ara sarha moo tax ci dundam gi 75 ans yi mu dund 42 ans yi ci la noppee am ci la noppee am jàmm parce tag rasulullah lay nee na moo tax ñu génn ma réew mi tas samay kër wala kuñ kuñ yàq say kër ngir tagg yonent bi ñu dem ba mu yàgg fu fu ab jullit nekk am nga fa kër xanaa kon ki nga doon liggéeyal fay na la bi ngay jógee fii di di ci bitim réew sa kër dañ ko sa dëkk benn nit dafa dëkk Tuubaa kenn dafa dëkk dañuy wax sëñ Muudu Fall xonn dañoo dañ ko tasaare spécial kenn dëkkatu fa léegi réew ma wàcc am na fa kër yàlla fay na ko kon xusóorii xalal wala ahlu anni tafarraxat li maddi la si annu maddi wa xasiru waaye nee na du ma bàyyi mu ko tagg ma ko jox xeeb naa ko naa ko jox weneen amutoon amutoon amutoon pharmacien sëñ Tuubaa amutoon médecin bu ñu naan mooy xool yaramam déedéet kenn du la wax sama maama ko doon faj nee na loolu du ma faj loolay faj mu ni su ma jëlee xalima gi bëgg a tagg yonent bi sama jàngoro fi lay dañ fi sensé isam tadaxtul muntaxa su jaaxa saaxali xëri ba dalil aw jaaxa xanaa xamoo iblis sax sama mbind mi arrangé wu ko lu tax mu ni saa ma bindee yonent bi day muñ yonent bi muñam iblis attunu ko isam tadaxtul muntaxa lasi sabax tafdiluhu bakkal lahin wa abax waaye isaa kattabtu ibtasama almuxtaaru min jinaas yi kamaali iblisa bii sitaaru sëñ Tuubaa moomu moo wax ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bokkul ci mag ñu baax ñi ñu ne tax mu muy dafa gën gën ak baax du benn mooy différence ventilo ak kilim loolu mooy différence gën ak baax fu mu bokk mu ni raamal war aa nay la fadlil musri ina loo wal fadlu hind rasulillahi xarraru moom ngëneel ci moom rek lañ koy sàkkoo nee na ku demul ci moom doo ko am sëñ Tuubaa waxee ni moom ku ko bëggut ne di nga faatu ci gàcca faatu yëpp nag faatu ci gàcca ci gën a ñaaw waman la yu xib waman la yu xib xubba xibbal Moustapha maata ak jalaa ku ci gàcca ngay faatu yàlla na ci yàlla musal bëggam yonent bi tax na mu ni benn objectif la am waaye nit bu obsee dara war naa am méthode bu mu war a jaar bàgg ci la mu obsé mu ni sama méthode mooy xidma xidmaal yenent bi képp mooy nekk sama sama sama méthode muraadiye kaw nii habd rabbi xadima man uxaatibu bi sukkri wala fa bi saaxas mi ca damaa dogg sëñ Tuubaa nee dama ca dogg ba pare damaa dëgërloo yàlla sama borom bi fi des xoolal ni muy kenn la borom bi damaa dëgërloo yàlla mi fi des mujj naa nekk jàmm buy liggéeyal Seydina Muhammad wasixtu bi baaxin surtout abdallahu bi xadiman li xayri xalqi bil mukisi wa safi sëñ Tuubaa nee na li ma tagg rasul lay moo gënal yàlla ci mboolem la ko waaye mosu tagg ci adduna bi moo ko gënal ndax kenn mosu ko tagg tagg yu mel nii kitaabati lisil wara ahabu min xatti xayri ya wali man yuhib xoolal xare yi dem xare jihaad lislaam taxaw sëñ Tuubaa nee na jihaad yoo mos a dégg ci àdduna daraja jihaad ja mook sama minima taloo daraja wali ya am daaxi jaxalta ka jihaad kulli mujahidin haddayta sajtihaad baa ngi xel nag mbind mi yonente bi la ko jëmale woon moo tax biñ ko biñ ko tuumaalee sëñ Tuubaa ni moom terroriste la xam nga loolu lañ ko tuumaaloon ba yóbbu ko géej dañuy leen déedéet loolu du dëgg ndax man musuma terroriste benn mbindéef man it terroriste sax duma jublu déedéet te musuma terroriste kenn nee na man ab jihadiste bu mag laa nag waaye xam-xam laa koy jaar aragal yàlla inni ujaahidu bi la xolam wa bi tuqaa abdan xadiman wala mu ay minu saahidu ñu ne ko kon ana sa ngànnaay mu ni ooma ngànnaay luy sa ngànnaay mu ni tagg yi ma tagg rasulullah yi mooy sama jël si sama xeej naabat kitabati xan la la daa ahlil kitab xan ni suyoo fi war laa xitaab nee na tubaab yi boo gisee ñu échec la bindoon ca ca géej ga moo doyadal seen pexe ya nafat kitabati la dal kataa iba la daa man sala sowali ak tabat xala daa nee na mbind mi mbooleem ku tagg rasulullah yi barke ba mu war a am ñëwal sama mbind barke bi fii lay jaar doo ko ñëw fi yow ilaya xaadal law yum nal xatti wa madd rabbi araxa matt yi sëñ tubaa nee na su ma nee cas xalima gi mbooleem lu baax day dugg ci biir xalima gi mbooleem lu yàlla sàkk tam baax day dugg ci xalima gi moo tax sama mbind yëmut ak mel ni mbind leen xaada fii kitaabatul xuyóoru tanoor li otaani wa du yóoru ilaya xaada fii kitaabatul xuyóoru mun salibati lii wa fust bi du te tagg yëpp nag yonent bi la ko tagg da koy tagg ba àgg ci maanaam xësda yi mu koy tagg gu jeex mu teg ci geneen fi ne tey jii guddi guddi guddi gàmm gi murid yëpp kenn ku ne mën ngaa jël benn xësda bu sëñ Tuubaa tagg yonent bi ci rabi ci rabiul awal rek kenn ku ne mën ngaa jël benn ñu ñeene ci baas bi te kenn ku ne doo bokk sa morom bi muy jàng te du jeex ndax lim tagg Rasul yi kenn xamunum toll te nee na boo gisee ma kawe boo gisee ma tedd li ma doon tagg yonent bi moo may tedd léegi bajjal la nii im ilayya nafhan daiman fan salaba loolu moo tax a tedd sama tedd nga xajul ci àddina man mi doon bind tagg rasulullah yi sax daf ma kawe njort man ba kawe ku dul man yaa jaahilan a fawqa sanni wa sanni xayri yaa asimal man ni moo tax sëñ Tuubaa ci dundam lu mu mës bind yenn yi da koy jox nit ñi mokkal ko jàng ko fi ne war ma ju sëñ ma sàmba amoon ci moom tax na sëñ ma sàmba dawul nangoo maas mbindum sëñ tubaa la dégg na koy wax ne moomaas lépp bu ko sëñ tubaa joxee xamu nu muy def day day day jël xë mbindum sëñ tubaa mi sotti ko ci geneen këyit këyitam googu lay jox donga yi nee na ay tegg na mayu ko muy maas mbindum sëñ tubaa daa di téye xis day sëñ tubaa yi kon murid yëpp mbindum sëñ Masamba lañu daan barkeeloo ndax war ma war ma ji mu ko joxoon tax na daawul tëdd ndong daawul tëdd ci kaw lal ci der lay fanaan ndax ne xawma fu sëñ tubaa fanaan bi te loolu yàlla da koo fay ndax li mu jox rasul lay xoolal da ko bëgg-bëggeel koo xam ni du ko sàllalu buy wax ndax yonent bi yàlla da ko warmal fi ne yàlla mboolem yonent yi da leen di sàllalu ci alxuraan bu woo yontale Xiisa da koy sàllalu danaa ko yaa Xiisa inni mutawaffika yaa Muusa inni stafaytuka yaa Daawuda innaa jaxalnaaka xalifatan yaa Adam usku anta soo ko janta yaa Sakariya innaa nubasiruka ñoom ñëpp da leen di sàllalu ba mu des Seydina Muhammad yàlla da koy neexal danaan ko nii yaa yool musammilu sama yonent bi yaa yoon nabi sama yonent bi yaa yool muddasir yaa yoon bi mu koy tudd ci alxuraan waxut ak moom direct daa am ñu xibaar ci moom moo tax mu am alxuraan am ñeent muhammad waaye waxut ak moom direct ndax war mal ko war mu jooju nag la sëñ Tuubaa jël ba wax ni yàlla moo wax ci alxuraan suratul xujuraat nee na bu kenn toog ci kanamu Seydina Muhammad di wax ca kaw na ngeen wax ndànk fi suuf yaa ayyuhal lazina aamanuu laa tarfa'uu aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharuu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'maalukum wa antum laa tash'uruun day yàq seen i jëf yonent bi kenn ko piisu ak di mel ni koy wax ak sama romb dañ koy war wormal moo tax la ko ci yàlla fayee war ma ji mu jox Seydina Muhammad tax na rakkam seeti na ko ba Gabon muy maam Seexanta fekk ko fu lëndëm te ruqe te sori te wéet bi mu nuyoog moom Sëñ Tuubaa ne ko seex noo def ba ñëw dañ ne ko santal yàlla fii daa neexee jaamoo yàlla bu dee fi laa faatoo sax wax naa ñu de nañ ma fi yamale ñan naa ko sama borom mu ne ko déedéet kon de Sénégal dañ am defet ndax ñëpp bari wax nañu da nga génn àddina sun noon yi mu ne ko xaaral ma ko yàlla daal waaye seex santal yàlla yenent bi ma xibaar sag ñëw yenent bi moo ma xibaar sag ñëw ndax fii la toogoon xaaral ma walla ko nga siyaare ko xam nga lu ko rakk ji tontu jëru ko dee ko gis rek ma lay gis yàlla fay na ko cofeelam da kon mooy ki mu bëggoon da koo jaral te yenent bi pour di wusul borom la yàlla moo ni na ko ñëpp bëgg yéefari biñ ne dañoo bëgg yàlla yàlla dañu leen du dëgg bëggu leen ma naxu nu abbu na lay waaxi ba mu ni bëggu leen ma de lu tax bëgguñu la yàlla mu ne ko bëgg rasul lay mënoo ma bëgg xool in kuntum tuhibbuuna llaaha fattabi'uuni yuhbibkumu llaah nekk bëgg yonent bi ku ko def yàlla jéggal la la wa yaxfir lakum zunuubakum wallaahu gafuurun rahiim sëñ Tuubaa nag yitte jooju rek la amoon yàlla képp la bëggan yonent bi képp la bëggan mus ta bëgg dara du wurus du naaru góor du compte bancaire sëñ Tuubaa asaka sax musu koo génne xam nga lu tax mooy musul denc dara mu jëm déwén boo denc dara mu jëm déwén asaka waru ci sëñ Tuubaa musul denc loolu lu ñëw ci këram tey bu subaa du fanaan tax loxoom musu téye xaalis yeddi li mu wax neen karimin naafi in samadin lale bir amin tati im su lay tiini kooku bëgg yàlla kooku moo gore kooku moo tabe bi ñu ko jaxasee ki ay noon ba ñu koy jël si ay mbokk mi ngi taxaw muy leen tàllil seen yoxo yi ñu def ñaan bi mu defee ñaan ba noppi moom sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul jiit léeg mbokk mi tubaab yi ànd ak moom di dem mu bëgg yonent bi rek ànd ak ñoom musta wax musta ko naqari moo tax keroog bi mu génnee àdduna doomam ñëw tiim ko muy seex Muusaa al Karim da koo tiim da koo tiim ni ko jëf am nga ngor am nga jom sa nangu nga muñ am nga ngor am nga jom nangu nga muñ daal di woo tubaab yi ni leen kaay leen xool seen waa yi yàlla moom na ko tubaab yu ñëw daal di ni ko yàlla day moom na ku ne jërëjëf mbaay waaye moom na ko bari personnalité muy kii ndax am ñu moom 33 cent kenn mësul xam lu mu bëgg sëñ Tuubaa nee na rus naa jël sama soxla di ko wax ko yàlla bind ni man us naa wax sama soxla ku yàlla bind ni man moo tax keroog bi bàyyam faatoo ci loxoom la nelawee sëñ Tuubaa moo ko moo ko doggali da di koy jàngal yaasin mu faatu mu muur ko waaye avant moo faatu dani sëñ Tuubaa fa ma jëm yow laa fa yaakaar muy bàmmeel 29 ans la sañ Tuubaa am xam nga lu mu tontu baay bi dees na la fa dimbali insha allahu rabbi bàyyam faatu ñu dem di ko robbi la sëñ Tuubaa ci tegg ni ñépp ngi war seen fasi naari góor yi ñëpp a ngi war seen fasi naari góor yi boo ñëwee ne ko yéegal mu ni baax na bëgguma yéeg lu tax bëggoo yéeg mu ni dañuy robi jàngale ko alxuraan bu dëkkoon fii dama bëgg am ci tuyaaba ji xoolal fa muy gisa moom musta woote dara ci biir armeel yi lañ taxaw sëñ Tuubaa ñu ne ko dañ dem nga seeti Lat Joor foofu nag fi la complexe yam xanaa bu sa baay génne àdduna président ma la war a jaale si ñu naan nan dem nga jaale ko bi mu ne xalaatuma ko ñëpp mu ci armeel yi lu tax ñu ni ndaw la am 29 ans porte yu toll ni ñu ubbi ko nga mën koo bàyyi nan soxlawuma ko mu ni déedéet soxla naa ko waaye li ngeen bëggu la bëggut ñu ne ko tee ngaa dem boo demee di nga am xaalis muy dina am xaalis waaye du ma am yàlla taman yàlla la bëgg xaaloo liyarkal lebab bi salatini tamus jawaay si tuxu ni kulla ma ini faxultu hasbi rabbi wax tafaytu bi wala suradiye xeral ilmi wa diini kooku musta gërëm lu dul xam-xam ak diine moo tax sëñ Tuubaa yàlla amu ko ñaareel ak càppaa amu ko ñaareel sëñ gànn Messere dalal jàmm bu ko defee sëñ Bass wax na ma léegi ni ma mi ngi bëgg a jot bu sëñ Gana dalee rek ñoo ngi lay siyaar bu baax sëñ Manda Gàkku sëñ Gana ñoo ngi lay nuyu léegi rek laay wax liggéey bu réy bi ngay liggéey fi nga ko yóbbu ak fi nga ko jëlee yàlla yàlla fay la bamba ji ko yokkut yaa wàññi nit ku ne war naa fexe bu yemal xeamee bu la sëñ Tuubaa ne lu nekkoon sa participation ci sama woote bi nga mën a teg dara ci taabal ji eh, bëgg a toog noonu rek amoo parti participe boo dara ci woote bi loolu gàcce la te sëñ bi ki woote woon ku sonn la te yàlla fay na ko de li ko yàlla fayee nag min na muréy mi bokk na ci li ko yàlla gën a fayee moom koo xam ni yàlla da ko fegal dee du faatu nee na lu tax mu ni li ma doon tagg Rasulullah moom ma ko fegal boo ko koo xam day dem Tuubaa di ko siyaar du ko gëm du xam lu war a wax déedéet waaye boo ko xoolee ku jàng wala tax si ba la si na xóotuloo dina xam ne sëñ bi fàdduwul lu tax mu ni mbind mi ba ko fegal li ma tagg rasul lay moom ko fegal xadamtu bil xatti bi naa mawti liya naha waxat rafantu sawti yàlla màbb na dee ngir sama mbind mi te ku ma sóoru sax dee attaqué la la te li ma doon tagg lay léegi ñoo ma wuutu ci ku ma noonu ñoo lay ñoo lay teg gàcc ba kër nga dugg sa war a séntu makkaatiba te doo la kulla muhaadin wa te doo mëbbkiya ba mu yàgg mu ne rasulullah yi moo ma dëkkul samay noonu ni ma maa lay xeexal sajjatu lal aday xablu mujahidan u xaatibu man hanil hida kaana yet la su waaye xamul ko yàlla fayee da ko mandal ci kaasi leeram ku osu ko tas bi ne biansa bu saratan ne li mu yàlla jox ci taranga gàcceel na boto ak gaal ak géej ga muy daw la ci nekk ci taranga aku yiw li ma yàlla jox gàcceel na ko wali xutta faydan ah jalal baxara wala fulka yàlla def jàmm temps bi daa jot te sëñ gànn ñëw na professeur léegi rek lañ bokk jógee fële mu jàng waxtaan fa lu neex yàlla yàlla sàmm la barki Seex Ahmadu Bamba waaw sëñ Saliou loolu ñëwoo ma ko bañ sëñ Xaadim maa ngi koy jéggudu rek waaw moom day sëñ bëgg ku mat a waxtaane la waaw ndax moo mujjee yëf yi te yàquwut te wax naa ko léegi bi may waxtaan euh, ma ni ñamanoon ca cedd ga seeni sëtaman ci diine Seydina Umar bun Xattaab waxuma sax ab ceddo waaye ab yéefar loolu te sëñ Tuubaa ne moo tax dina am ndam saa xewar a Fatma nag dafa ñëw ci Matar Seex Matar Ndumbe Jóob ne ko damaa bëgg a dugg ci lislaam ceddo gi daf maa naqari mu ne ko baax na ñaata dëkk ngi lif ci Kajoor mu ne ko fanweeri dëkk yoo xam ne sama ndigal la ñuy diglu mu ne ko léegi demal buntu kër gu ne nga taxaw fa ma jàll fa ñoo xam ne tuub gi dëgg la bi mu ko defee daal di dem sanc ab dëkk tëdd ni silmaxa naa ci lépp lu bon mooy silmaxa mbaakol ba mu demee dafa tawaloo ma du yàlla sama maram xëya ma parti aram sela sump ca ñaxal ndaak fara si libaas soxna jang si libaas soxna fat jaxate sëñ Saliou kooku nag bi mu yoree yëf yi 1815 la gën a jamono ñoo ngi ñaanal sëñ Saliou Touré yàlla yàlla na ko yàlla dolli leer moo ko tudd ca bi mu ko tudd la am ndax 20 ans la ko magee 1915 ak 37 waaye ku ko ëpp jom amul ci réew mi parce que 18 ans la am sanc daara loolu fi la jom yam sanc gotax xabaan doon jàmbaar loolu nag day lépp sax di dundal ay doom ay doomi jàmbur xam nga ñaata kilo lay sóor par jour 2500 kilos ci mbooleem 25 daara yi ay doomi jàmbur du ñu fay ordonnance bi yaa jënd yaa wut médecin yi lii fi la mbaax yem xanaa moom bu fekkoon daa ñëw adduna sëñ Tuubaa bu ñëwoon adduna am fi genn doom ji rek war naa tax mu doon jàmbar bu fekkoon daa ñëw adduna am fi jurul benn doom ji sëñ Saliou Fat rek jàmbar la waxoon du ma laag nga jël Cheikh moom Lamine Baara keneen ak keneen keneen ak keneen keneen ak keneen ba pare baatu kennal sëñ Tuubaa mi nga xam ne sëñ Gana ci projet boobu lay xëy man ma ciy xëy ñu bari léeg la nga dégg ñu ciy am lu ñuy critiqué gis nga sañ tubaa mi nekkoon Mbàkke Kajoor demoon fi géej yaayam nekk Poroxaan baayam nekk Dexli sëñ Tuubaa moom amul Bambey amul Kawlax amul Ndar amul ci réew mu am Tuubaa kese la ne kon kenn la ci saa kenn sëñ Tuubaa ak bu du benn nun xam na baax ni yàlla amutu nawle moo bind ñëpp yeneen yi mooy sëriñub sëñ Tuubaa mais ku ma sa mel ni sëñ Tuubaa mosu ñëw adduna loolu mooy feeñal waxi sëñ Muntaxa ji boo déggee mu ne yonent yebul sëñ Tuubaa ak malaaka moom laa bëgg a leeral tuuti ndax moom du toog ci baas yi di ko leeral ñi toog ci baas ñoo ko mën a leeral yonent warta yeb sëñ Tuubaa parce que sëñ Tuubaa ak yonent ak ñun ñoo bokk lu ñu yàlla digal mooy di leen jaamu te bu ngeen mooy waaye léegi bu la yàlla joxee juróom-ñaari cër ci mosu cër mooy yàlla ndax yamul xeex aw yonent dina taxawal di la wa da nga mooyoon yàlla wala sa kanam wax say mooy yàlla mu xeeb la loolu du dal sëñ Tuubaa ba liggéey xalaat lu ñaaw musuma ko def neen yàlla musuma wax juum nga mus ngaa jàdd lam yan xuni sajirun wala waxidu musuma def erreur ci adduna xanaa ko sag dund am dund soixante-quinze ans musa def bàkkaar bu la neexee feete ko moo tax mu ni sama dund gi feet la ba àjjana wa xumuri ilal jinaani xiidu kon yeneen du ko yëpp ndax deful ma yàlla ni moom malaaka tamit noonu malaaka yi bu ñu wàccin ci adduna ku ne jël benn fekk suuf su si day jeex dina malaaka yi amul ba leen yàlla tey musu ñoo mooy yàlla sëñ Tuubaa musul mooy yàlla ci xelam lam yanu këlkëli irtiyaabu lam yamil ila lisan ak xeer amil la wax lu tax mu ni dëgg gi yàlla jox na yonent yi la ma ubbil ma jàkkaarloog moom bay leel àq kasran lay fariqu kon malaaka du ko yem te malaaka yi sax nee benn soppe la nu am muy Ahmadou Bamba yuhibbu nii malaayikul baaxil xarim karim li wacc yi maama falay laa yërëm ñi yeenu aras nag juróom-ñett lan amuñu jot aras ëpp na adduna junni yoon nee na boo leen fekk ñu taxaw nga laaj leen ku ngeen bëgg ñu lu tax nga am ko mu ne yàlla ma ko terale akramani lahu bi kaw nil xamala li harsihi ahibati wal kumala ajjana nee na benn puukaree fa am mooy waa ajjana boo fa duggee loo xam ne lu ngeen puukaree woo dañ naa la xanaa tag yi suñ tuba tag rasulullah yi mooy sunu puukaree akramani bi kaw ni xatti xinda mimma yubahi fil jinaani junda moo tax sëñ Saliou daan kennal sëñ Tuubaa benn photo sëñ Tuubaa la moom sim laata kooku may dafa def dafa dem Jurbel li defar ay këyitam ki ko defar këyit commune rurale bi noo mu ne ko Saliou Mbacke laa tudd sa yaay mu ne ko fat jaxate sa bàyyi mu ne ah, kooku de waxoon na amul doom est-ce jar naa tudd daal dem dem ñibbi këram yónnee kii itam ndax wormal sëñ Tuubaa benn foto mu yées ko jarul koy ragal ku mat a ragal la parce yàlla da ko wormal mboolem xadar bi yàlla bi bëgg ko ñëpp wormal ko yàlla nañu yàlla fay la sëñ Muntaxa te yàggal ko fi ci barke sëñ Tuubaa jërë jëf waaleykum salaam wa rahmatullah Baye Aliou maa ngi leen nuyu waat baax di la sama xarit bi sëñ Xadim dégg nañ lool mbay sëñ Mourtala jërëjëf yàlla yàlla def tawféex sëñ Abdou sëñ Mandak gàkku mu baax mi jëf ñoo ngi xaar njàng mi waaye di siyaaru baax sëñ Dan jëlaat siyaaru kilifa yépp teg ko sa loxo waaw walaay dëgg la bëgg njabootu Serigne Touba li naan way ndëpp la ku ñu tudd saw rab nga yëngu fi nga toog naan Serigne Saliou doy na ci am na koo xam ne baas bi li ci poosam sëñ Massamba rek lay xaar am koo xam ne sëñ Fallou rek lay xaar waaye coolu coolu njaaga sëñ Touba rek kay njaag kon nag ñu santaat bu baax sëriñ Saliou Seck ci xam-xam bi ak yar bi ak wóllëre wi yàlla na yàlla wéral baat bi te guddal fan bi di santaat yàlla bu baax